Fallou. le futur maire est là Babacar. waaw le futur maire loolu loolu la bëgg. maire ngeen bëgg a nekk nii pour Medina. ça va mon ami. waaw mais kii lamba fi nee de. politique dafa am xaalis mu ëpp xaalis gàmm loolu moom jàmm ngi ci de. parce que kilim bii yi may xeeñ nii. affaire affaire engagement la. engagement pour sa gox. sa gox. ku ne sa gox rek. waaw ku nekk. localité bi daal. waaw ku dëkk sa gox. waaw juddoo fa yaroo fa màggee. waaw yoon may na la. waaw nga war a fekk bokk ci ñuy développé gox bi. lii moo ci lii mooy. lii moom li wareef la li citoyen la acte de citoyenneté te mooy li la yëkkati yow moo war mécanicien bi. moo war tôlier bi. moo war moo war reporter bi reporter bi. moo war képp caméraman ba tout le monde. lépp fekk parce que nag boo nekk parce que nag boo nekkee ci quartier. waaw ngay fexe bokk ci instance dirigente yi maanaam ñiy doxal ak ñiy dindi ak ñiy teg ak ñi ñuy laaj. lii mooy sa. Euh, mooy su yéene waaw te moom nga bëgg. te moom laa bëgg moom laa bëggal Medina. moom nga bëggal Medina. waaw ëllëg kon mën nañ laa xaar feneen xanaa fu gën a sori foofu. non fu gën a sori foofu di réveil musculaire. après mère waaw réveil musculaire réveil musculaire ngay def. asalaamaaleykum. <laughs> asalaamaaleykum. la presse ñu ngi leen di ziar di am contentement trop di rafetlu seen teewaay fii suñ teewaay fii nag. ñàkkul yëgoon ngeen suñu suñu ay tànk ak suñu ay jéego ci wàllu loca localité yi nga xam ne fa ci leen jëm muy wàllu suñu gox tegoon ci ay jéego amoon fuñ ci waxtaan ak suñu ay nit ak suñu ay xarit ak suñu ay am di jàmm amoon ci wax dëgg yàlla benn mission boo xam ne tey ci lañ nekkoon di dox loo loo xam ne dafa concerné suñu quartier suñu juddoo yaroo fi màggee fi muy Médina Médina bii nag euh, fi lañ déggee lépp fii ñu nekk ñi tey nii mooy suñu quartier boo xam ne tey fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee fa nit bu ko yàlla nit fa muy juddoo ak fa muy màggee nekkul moo koy sàkkul boppam yàlla moo naan la fii ngay juddoo fii ngay yaroo fii ngay màggee fii ngay déggee parce que doomu aadama laata moo juddu yàlla bind na tracé na fi mu war a jaar fii nag moom suñu quartier la te dañu fier juddoo fi fier màggee fi te nag doomu aadama nag gannaaw bala yàlla sàkkale fa nga dëkk parce que moo ko wax ci xadis na xutbul xutbul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk te nag bu ñëwee réew balaa ngay wax réew ma di dem fenn te fa nga juddoo te nag gannaaw ba ñu juddoo fii ba pare nag ah, fii moo ñu tàggat Medina moo ñu def li ñu doon tey dama koy wax ne rek tey ku nekk fa nga dëkk moom ngi tiit Medina moo ñu def li ñu nekk tey Medina moo ñu forgé Medina moo ñu moo ñu créé en toute pièce lépp ñu xam ci mbedd mi ci expérience de vie fu ñu mën a dem mën koo développé tey quartier bi ñuy wax Medina moo ko def ci ñun gannaaw nag ba ñu yàlla nattoo ñu nekk ay sportif yàlla nattuñ ci làmb jël suñu destin féetale ko ci làmb ñu dugg ci Medina moomu ci mës a accompagner Medina moomu ci mës ànd ak man mais tey am na foo xam ne boo fa tolloo ci sport te ñi la koy defal muy quartier bi nga dëkk te tu as les idées nga am idée yaa ngi voyager xam fonctionnement wu commune nu muy demee xam parce que tey boo xoolee y a quelques années jeunesse bi. ay localité mosu leen intéressé daanu ci woon impliqué wu te tey c' est pas seulement Médina bari na ay quartier yu bari yoo xam ne environnant yi yëpp ngay gis nii jeunes yi dañoo takku parce que tey xam nañ ni tey seen destin wu quartier fa ñu dëkk seen loxo la nekk parce que l' avenir appartient à la à la jeunesse loolu nag yàgg na nekk sumay mébét yàgg na nekk sumay engagement ba ma Médina defaree ba pare la laa war a servir la Médina tey nekk ci quartier bi juddoo fi yaroo fi fi yàlla may ma ay opportunité may ma expérience de vie ma yàgg voyager xam nga partout war a mën a am ay link yoo xam ne tey war naa ko mën a contribuer ci quartier bu ñu naan Médina fi nga xam ne moo moo def moo ma ñoo def li ma doon projet bi loolu parce que tamit foo boo dëkkee ci quartier da ngay fexe ñay doxal nga fexe bokk ci bi jëlee nag. yoon woowu nag ànd ak suma ay xarit suma ay am di jàmm suma ay papa suma ay yaay suma ay sœur ay mouvement yi nekk ci Médina bi ma bi ma tegee projet bi rek dafa intéressé ñëpp amul ku mu intéressé wul moo ko tegee rek amul ku mu fon wul képp kuy mouvement fii muy kuréel boo mën a nekk bi ma nee bi ma ko bi ma tegee projet bi gis naa sa appui ñëw nga ci man dama ñoo bokk gis-gis bu ñu demee nag nekk ci loolu nag ba dara desul lu dul càppaandaw ba tey bu ay changement amee dafay baax ni tey nit ki nga xam ne boo waxee nit ñi dégg la dafay baax tey ay changement bu amee tey nga woowaat askan wi parce que am na ñu bëri ñu ma doon déglu ci diaspora bi partout di ma déglu di ma xaar pour tey ma yëkkati sama caution dem joxe ko bokk ci jongante yi loolu moo doon initiative bi te loolu ci loolu lañ nekkoon ba léegi biñ biñ ci bi ah, changement amee démb la te comme que maa toogoon wax askan wi am na ci ñoo xam ne au début sax dañ doon naan giri est-ce que li muy wax nii sax réellement est-ce que quel nekkul xam nga te kilifa lépp lu muy wax parce que ëllëg moo tax parce que fii lu fi am ci àddina ñoon la vaar na yóbbu te nag nit nag bu yàlla mayee kàddu ngay yëkkati di wax nit ñi dina déglu ci lépp loo mës a xuus ci ay kàddu rek na nekk loo xam da nga koy jël topp ko ba ca cappaandaw ga loolu moo doon ñu yéene looloo nekkoon suñuy mébét looloo mës a nekk suñu ay engagement waaye changement dafa am mooy tey bari na tey ay parti yu fi ne yoo xam ne tey yàgg nañ ma sollicité tey pour tey ma ànd ak ñoom du fi nekk nag di cité ay tour mais bari na ñu ma approché bi ma jëlee ak samay nit nekk ci benn faxo fa pare woon pour dugg tey ci tey jongante bi ci wàllu mairie mais tey changement yi am tey mooy ku ne bari na ñu ma approché mais tey dama doon waxtaan ak samay ay nit parce que tamit li nekk sama gannaaw tey décision bi décision bu may mënti jël tey lu may toog waxtaan ak sumay nit ak sumay collaborateur ak association fii nekk ak kuréel yi fi nekk nekk seen ginnaaw doon ma déglu ci lépp bi loolu amee Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu koy woowee Cheikh Ba bërki démb la ma woo yàgg na ma woo pour waxtaan ak man ci projet Médina parce que nit da ngeen di bokk conviction bokk gis-gis bokk ay xalaat pour mën a jëm parce que tamit Sénégal àdduna na fi bi ñu toll sax pour tey nga dem wuti dara pour am ci ndam sax il faut que tey nga fexe am collaboration ak nit koo xam ne yéen bokk ay vision yéen bokk ay engagement yéen a bokk fa ngeen jëm bi ma wooyee ma déplacé wu ànd ak suma ay nit ànd ak suma ay frère ànd ak ñi nga xam ne tey projet bi ñoo ko séq ñu dem toog ak moom mu expliquer ñu tegal ñu feuille de route tegal ñu tey li mu bëggal Médina ak fi mu bëgg yóbbu Médina te ñun foofu rek la ñuy gisee parce que tey mënuñu ànd ak yow ànduñu ak yow wala ñu bëgg lëkkaloo ak yow pour doxalu dox pour lu doxal Médina ci bëgg lu la neex parce que ñun nag gannaaw yàlla ak yonent bi yàlla dimbali nañu ba lii ñuy xam ne muy làmb ji yàlla suturaal nañu fi ba nga xam ne am na loo xam ne tey la ñuy dundale suñu njaboot yaakaaruñ ko ci kenn ci suñu liggéey lañ ko yaakaar gannaaw yàlla ak yonent bi ba nga xam ne dépendruñu ci doomu aadama te nag nit sooy ànd ak moom da ànd ak moom ci conviction wala nga gis lu la doy ci moom bi ñu demee seeti ko wooluñu tegal ñu programme boo xam ne tey nii dal na suñu xel boo xam ne tey lépp ci développé Médina am na ci loo xam ne suma collaborateur Mountaga jax am na am na ci lu bari après moom dana ko mën a développé mais li ci am importance tey li mu teg ci table bi pour expliquer ban pro projet yi pro ay projet yu palpable yoo xam ne tey amul nit kuñ koy tegal tey te doo am yaakaar ci moom ànd ak nit nag neex na neexul parce que day milieu bi nii tey dañ ci nekk ay dañ ci nekk innocent dañ ci nekk innocent parce que mooy tax parce que ñun bokkuñu benn parti Gris Bordeaux bokkul benn parti c'est pas un politicien mais man Médina laa far Médina laa bokk Médina jaral na ma man tey bu weesoo carrière sportive bi may def nii tey Médina jaral na ma wàcc ci tali bi Médina jaral na ma lëkkaloo ak nit koo xam ne ëllëg tey lépp lu muy dox ci àddina mooy pour Médina dem ci kanam la nit kooku nag yàlla da ko dogal ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu nekk l'homme idéal pour la Médina ma ànd ak sumay nit ànd ak sumay xarit ànd ak sumay collaborateur pour tey ci élection yii fas yéene ko ci jàppale ànd ak moom collaborer ak moom pour fair avancer la Médina. ah non non loolu loolu loolu loolu. loolu c'est loolu c'est différent loolu ça n'a rien parce que tey bu ñu engagé woo ci projet bi nii lépp fi taxaw lépp mat caution yeeg lépp mais dafa am loo xam ne tey dafa am loo xam ne tey nit ki vision nga mën a bokk ak moom ak gis-gis pour tey mën a topp ci ginnaaw man tey pour man ci wàllu politique nee naa la de un ci benn parti man Médina ak ngir Médina la faral te profil bu ma gis profil bu ma gis yaakaar ni man mii li ma bëggal Médina mii ci yow amul lenn lu may obligé ak lenn lu may dàq pour bañ la jàppale loolu laa gis ci Cheikh Ba te nag c'était pas facile bu c'est pas c'est pas lui seul moo ma coopté pour bëgg waxtaan ak moom man demuma envers moom ne c'est lui moo ma woo te xam na man yére a ngi maam ci Médina man it gis naa ci moom lu ma doy. loolu moo tax ma fas yéene ànd ak moom mais du leneen. non man man lépp lu may dox ci àddina Médina la. xam nga tey non man dugg ci liste. ou pas intéressé wu mais en politique lépp la ñuy xam mais man la loolu nekkul sama objectif dugg ci ay liste man pour man man Baye Fallou Médina la te lépp loo xam ne tey. parce que appui la nit gis nit poussé ko yaakaar ci moom poussé ko yaakaar yaakaar rek nga am ci moom ak projet yi mu la tegal pour que tey nii mu jël mairie bi pour tey xam nga ni kii tey bëgg na yóbbu am na fu mu yóbbu Médina mais loolu du du du du du du suma du suma ay mébét ngir bu bokk ci liste ñàkk bokk ci liste c'est pas loolu amul importance mais en tout cas fekk bokk ci mbir mi rek. à supposer que da sachant que conseil municipal bi. am jotu waa yow il loolu am na dëkk Médina. man di yeewoo mën ngaa di yeewoo ci dëkk nekk di fi yeewoo te neewoo fi fii am na ñu fi yeewoo te neewuñu fi am na ñoo xam ne yeewoowuñu fi te ñu ngi fi loolu amul importance am na ñoo xam ne am nañu fi dëkk te yeewoowuñu fi am na ñoo xam ne dëkkuñu fi. ñu ngi fi ay yeewoo man dëkkuma fi mais fii laay yeewoo 24 heures sur 24 fii laa koy def kon boog loolu amul importance li am importance mooy tey médinois yi samay yaay samay rakk samay sœur xam nañ fi ma Médina toll ak li ma bëggal Médina c'est ça loolu moo am importance. soo buggee gisee ma posé question bi conseil municipal bi weesu dañoo bëri ay conseils yu dëkkul Médina liggéey bi nga xam ne dañ ko war a def mu nekk de transmission Médinois yi bokk na si loolu yëpp bokk na suñu projet ak Cheikh yan Ba tey man am na benn am na benn am na benn posture boo xam ne bu ma ko naree nekk pour liggéey ko ci biir Médina je suis obligé tey nekk ci biir quartier bi bañ a nekk distancé tuuti. mooy war a mooy loolu moom fay laa alhamdu wa shukru yàlla rek a xam mais dama la bëgg xamal ni am na engagement yoo xam ne tey bu moo ko bëggee def ci Médina dëkkantaan projet yi ma war a teg pour Médina jàppale ci Cheikh Tidiane je suis obligé nekk fi di fi yeewoo te loolu incha allah ñu ngi si. ok.

non parti pouvoir man xaw ma sax ku nekk parti pouvoir ak ku nekkul parti pouvoir man nee naa je suis un politicien man parti benn parti laa bokk muy Medina gëwuma ni sax parti au pouvoir am na gëwuma loolu man xam lu ma gëm yaakaar ci nit ni li ma bëgg ci Medina man ak moom ñoo ko bokk ma jàppale ko mais gisuma loolu xaw ma sax xàmmewu ma sax parti au pouvoir ak ku nekk opposition man Medina laa bokk parti bu ñu am Medina. ñu jaar euh, par rapport ak dañu defe naa ñu gisee lii li ñu ci mën dañ ci am lu ñu rafetlu rek par rapport ak làmb parce que ñun ci làmb la ñuy liggéey tout le temps mhm. ñu gisee benn mbër bu nga xam ne un leader bu nekk ci quartier am xëy day taxaw ne dafa bëgg a nekk maire bu xam wala bu pour défendre defe naa ne fierté waa làmb la ci côté boobu waaye nag euh, kon loolu dañ da si remercier defe naa tamit lii am na solo trop mbër yi tey mu wane que ni ñoom ne ku ñu nekk ni dañu war a bëri seen carrière mu jeex rek ñu rangé wu toog quoi war nañu mën a am seen mois di seen dëkk moo xam dëkk bu ñu mën a dëkk nag moo xam Medina la Bambey wala Kaabu Ndangam a que Cheikh Tidiane Ba moom mas nekk sa ginnaaw ba nga xëy day taxaw ne moom nga mujj rejoindre ci benn bokk yaakaar wala déet euh. moo tax tamit est-ce que Bamba Fall contacté na la parce que nee nga kilifa ñëwee dinaa di laaj mairie non ñi ma contacté du ma wax ne diw ak diw ñoo ma contacté mais li li wóor bu wóor mooy tey Gris Bordeaux communication moo la parce que man tey man fay foofu nga wax noonu ministre de la justice xamoon naa ne sax koy posé que yow doo jàmm yow nitu doo mais tey li wóor ba wóor mooy foofu ma dem tey ñu invité woon fa foofu ñu recevoir wuñ foofu man ak sama naw la ñoo fa mu for man rek xam nga loolu moo am importance ñu fa demoon tey te li ñu fa taxoon dem te Sénégal yëpp xam na ko xam nga lu woon dañ fa demoon pour raayante dañ fa dem pour waxante lu baax le ministre de la justice moo juumoon ci ay propos am wax ak lu làmb ay wax yu déranger ñëpp particulièrement ñun ñi nga xam ne tey ñooy les acteurs wax ko wax ñu ko ñu naqarlu ko trop bi ñu ko déggee mu wooruñu tuub jégalu dañu maa leen di jégalu nii ak nii laa ko bëggoon waxee lii ak lii ak lii te un ministre de la république un troisième personnalité du pays soo woowee ci loolu tey li ngay mën a def rek mooy xam ne nag làmmiñ moom xam nga accident wala làmmiñ fu ne ku ne lay dal mais Gris Bordeaux mënu ci communication tey nee naa la je suis apolitique mais Médina jaral na ma wàcc parce que lii affaire de patriotisme la war na képp ku nekk ci quartier ak ci domaine boo mën a ne yoon daf la may lii du rek ak loo mënti nekk enseignant bi caméraman bi sëriñu daara bi koo mënti doon yoon def la may lii tey sa quartier nga fexe bokk ci instance dirigeante loolu devoir la mais boo doo communication mënul changer tey laa gën a mën a toog gis loo xam ne naka sutul noonu état def ko wala ku ko mënti doon tey bu ma ci amee occasion déploré ko loolu c'est Gris

yaa ngi yaa ngi yaa ngi jaaw yow ñu localité la wax man nee naa la man nee naa la nee naa la lii tey man tey ci àddina Gris Bordeaux lii rek moo ko jaral nit ñi du ko dégg lii rek Médina rek moo ma moo tax tey parce que tamit am na ay jotaay yu bari yoo xam ne bu ma caméra yi dëppee nii c'est la lutte sama domaine mais Médina képp kott dong moo ma mën a jaral lii te dama ci fier nee naa la je suis pas politique politicien benn parti laa bokk muy parti bu ñu naan Médina te képp ku ma yaakaar ni am ci yow confiance nga wan ma quelque chose boo xam ne tey permettre na ma ma wàcc ci terrain bi accompagner la pour tey nga jël Médina yóbbu ko fi ma bëgg te tey ëllëg sax bu ma tey bu ma gisoon tey nii jàppale Cheikh Tidiane Ba tey bu mu téyee mairie bi ba ma gis naka sunu noonu sax barki Seydi amul lenn lu may obligé ma taxaw yuuxu kaw parce que man noonu laay fonctionner mais yaakaar parce que nag naa la benn affaire gis nga nit yàlla mooy sàkk doomu aadama charisme dafay am ci nit sopplu dafay am ci nit leader dafay am ci nit am na nit ñoo xam ne ñu ngi gouverner te barki Xalifa Malik yàllaa ko bind seen jë mais charisme dafa am ci nit sopplu dafa am te nag naa la benn affaire coow li muy bëri yëpp loom idéal pour la Médina c'est Cheikh Tidiane Ba te bis bu ci yeggee ngeen xam ngeen ngeen di xam loolu te barki Cheikhouna Tidiane waxeewu ma ko ci suma teyaayu bakken xam nga Sénégal dafa am habitude booy wax ñu yaakaar ni ñu jëlee ko fu ne su nammee di yëkkati ay kàddu di ko wax ci jëmm nit ndax bëgg lu ko neex te nekk lu ma gëm yàlla bu ma ci am ndam li may wax nii li may wax nii lu ma gëm la te ñaar fukki dërëm taxul ma koy wax ci kàddu lu ma gëm parce que man li ma yóbbu sama kër Cheikh Ba mënu ma koo jox man li ma gëm sama life maa koy liggéey mais dañoo bokk vision bokk gis-gis ma xam ne projet yi mu am ëpp na sax Médina barki Cheikhou Tidiane projet yi mu am laa la wax xajul ci Médina weesu na Médina kon kooku nag Médina yi Médinois yi dañu war a conscient suñu yaay yi suñu papa yi suñu frères yi suñu sœurs yi dañu war a conscient ni Médina bii y vingt ans ak Médina bii c'est différent te y a y une personne qui s'appelle Cheikh Ba c'est l'homme idéal te il faut ñu soutenir ko jàppale ko pour tey Médina li fi nekk ci anarchie ak ci ay jafe-jafe ko loolu mooy projet mais champion. loolu am na am na am suñu ay xarit suñu ay am di jàmm yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi xam nga am na suñu ay am di jàmm. waaw ma góor gi góor gee dëkk ci gi Adama John bi ma jur moo dëkk ci même fii laa dëkk waaw. fi laa hôpital Abbas Ndao laa juddoo. ba démb ah. ah. la. loolu amoo la rek. parce que nga ñëw parce que ñëw ci quartier. ñu honoré la parce que tey damay wax ni tey lii tey honoré la nga dëkk ci quartier dem mbaaw ñu futal la fa arrêt kuy ñëw fa na arrêt Gris Bordeaux loolu fierté la te loolu dañ ciy am mbégte trop en même temps du nuyu wàlla waa mbaaw fa la sañ njaboot nekk ñu ñëw fa jugee Medina juddoo fi yaroo fi màggee fa dem fa ñu taataan ñu jël ñu def ñu comme doom bu ñu fa juddoo kon loolu fierté la bërgi dem yaa di ma ko wax ma am contentement trop te am na xam ne boo fa yeggee arrêt Gris Bordeaux la ñuy wax encore une fois je vous remercie davantage ah di nuyu toute la presse je suis très content xam nga di du du di nuyu kat Malick Ndoye di Pambay Sané di nuyu Fallou moo frère moo jumeau xam nga membre CATB la nekk ku jàppale Cheikh Ba xam nga ñi ci ñi fi waroon ñëw yëpp tey bu ñu fi duggoon tey fii day xat waa ñoom Jibi Diop ñu ngi nekk ci ginnaaw suñu sama frère yi Abdoul Aziz taaliba Cheikh taaliba Cheikhu Tidiane bi ngi xam nga di nuyu gars fii waaw Jean mon grand frère parce que day ñi fi waroon ci fii day dafa xat waaye ñu nekk si biti moo ëpp fuuf parce que day man je me suis dit que Médina aw ma fi frontière fu ma nekk nekkuma nit koo xam parce que encrage communautaire bi nga xam ne tey nit naa la gaañ de maanaam tey dafa am loo xam ne tey dafa jafe ci leader yi léegi tey nga bëgg a gouverner lu mel ni gox tey da nga am un problème boo amee boo amee boo amee un problème ancrage communautaire ci ci quartier bi da am problème te man loolu yàlla daf mu ko dimbali ba nga xam ne tey Médina but ba but amul kër bu ma amul bu ma xamul ña fa parce que loolu bien avant que may dugg ci làmb la ma yàlla defal loolu ma nekk nit ku xale bu kumba sopp bëri affaire yoroon nag di tëgga doon dëgg asikoo xam nga di dugg ci lu ne lu ne def naa ko marché Tilène bii boo fa duggee jaaykat ya fa nekk xam nañ kuy Gris doo am na ñoo xam ne tamaate njambal lañ may woowee parce que daan naa fa jaay tamaate daan naa jaayal su ma yaay tamaate daan ko jaayal euh, ay poro daan ko jaayal lépp tamaate kon nag loolu tey dama ci fier aw ma Médina aw ma fi noon peut-être projet bi dina am ñu muy danaa parce que tamit ñun tey mbër kii wax ku ko wax léegi am na ku ko wax léegi euh, Babacar ñun mbër dañu bëgg jël du mën na mbër sax dama na sportif dañu dañu bëgg jël am fu ñu casé comme si ñun waruñu politique waruñu non loolu dafa war loolu tey lu jaaduwul la parce que tey nit ku am tur sa tur moo la war a permettre tey loo bëgg a développer sa quartier d'abord da ngay commencer par sa quartier parce que tey loolu dafa valable pour ñëpp parce que tey Sénégal la nga gis un sportif ñu bëgg la privilégié yu bari na waroo def politique waroo bokk ci lii waroo bokk ci lii dem dem leen dans les pays développés xam nga loolu nag tey moom dama ci woo li benn touche la rek li ci woo le monde sportif maintenant dafa bëri ay sportif sportif yi nga xam ne yëpp ñu ngi nekk Médina euh, nañu jàppale Cheikh Ba parce que Cheikh Ba am na yéene bu mu bëggal waa Médina xam nga te tey maa ngi leen ci woo ñoom ñëpp mbëri yeeg footballeur yeeg ñëpp monde sport yëpp di leen ñaanal jàmm li du ci nag yëpp xamul ci cin ah. la presse ñu ngi leen di sant di leen gërëm di am contentement ci yéen trop li ñuy waxee nag xol la ñuy waxee Médina kenn merul te kontaan nañ trop ci yéen parce que tamit yéen ñu nag yéen ñoo far ñun dañoo bokk ak yéen parce que mënuñu dem sans yéen kon boog seen déplacement bi ngeen ñëw fi kontaan nañ ci trop di ñaanal waa Médina yëpp